nee naa moom mooy xalif général li nga xamante ni moom mooy kullu bongomaan loolu moom yàlla defal na ko ko te dañ ko koy nangul bu baax a baax a baax ndax nee naa xale yi bu nu amee fit téye li nga xam ne moom mooy bongo moom joué na ci nga xamante ni rek moom mooy part de responsabilité am tey nag moom laa seet si fas yéene waxtaan ak moom ci li nga xamante ni rek moom mooy bongo yi waaye na waxtaan ak moom aussi ci li nga xam ne mooy actualité sama xarit la nag maa ko sa def dama ko bett dama koy daal di nuyu rek ziar ko bàyyi ko mu nuyoog ñuy seetaan à travers Equivox TV Ouzin maa di la ziar waaw sama xarit maa ngi lay fay di sant yàlla bu baax di julli ci Seydina Muhammad di gërëm siit bu mag bi hmm, nga xam ne moo mujjee ñëw waaye moo gën a neex di sant yàlla di ñaanal sëñ Muntaxa Mbàkke mu yàgg fi lool te ànd ak wér di ñaanal sama sëriñ sëriñ Afiya Mbàkke mu sëñ Fàllu yal na yàlla yokk leeram di ñaanal tarixa yëpp murit tiijaan xaadar laayan ñoom ñëpp seen tarixa ñu yàgg fi lool te ànd ak wér di la béggee yow sama xarit nga léegi nga ma woo ma accordel la ko léegi léegi nam la def nang ko def ak a tax nam la def nang ko def a tax ñun ñëpp benn lañ tey seen liggéey ak suñu liggéey benn la waaw waaw. ñu noonu kontaan naa Ouzin Mbaye dañuy ñëw ci li nga xamante ni moom mooy euh, bongo yi ku ne Ouzin mbaay ne bongo ñenn ñi sax dañ naan moom mooy xalif général kullu bongo maan tey bongo bi. gis nañ géer ñi yor li nga xam ni mooy bongo gis nañ géwél yor li nga xam ne moom mooy bongo maanaam mbir mi daal mu mel ni rek euh, sëllëx la jamono ji waaw gis nga métier day mokk te it loo doonul taalibeem doo doon sëriñam bépp métier boo gis ci këru àdduna nga bëgg ci tedd da nga koy jàng l'art cet une vieille tradition ludique il est revenu au bout du jour looy def ci këru àdduna sàcc sax dañ koy jàng balaa ngaa sàcc sax da ngay opérer ba xool doog a sàcc lépp looy def ci këru àdduna dañ koy jàng surtout métier art art dafa doon lu yéeme bongo d'accord leket la bant laam fer mais dañ koy jàng xale yi may gis yu bari tey ñu gàddu leket rëy làmmiñ di wax fu ne ñu taxaw fa wax bu ñu génnee ñaari yoon télé ñun suñu promotion dañ ko dox avant télé ñoom dañuy tax toog sax di woo site yi pour ñu invité leen wala di woo ay animateur dimbali ma invité ku sa métier mat jarul ngay woo kenn fi nga toog ñoom ñoo lay soxla ñoo lay woo mais. mais xale yi nag Ouzin Mbaye dogguma la nee nañ jamono ji ñoo gën a ñoo gën a xew. waaw ñoo gën a xew yéen ñi nga xamante ni yéen. bu gaynde ñoom lay woo. bu gaynde gu mag yuuxoo gaynde gu ndaw yuuxu nga xam ne bokk ñëpp sabin cuujum géléem ceeli du ko këf ndax antanu ko waaye lancum gaynde ku ko nara lu mu xiiru sa kaw yaa ngi dégg chaque jour ñu naan mag ñee ma jàngal waaye maa jàngal xale yi ñoom nañ jéem a dégg way woowu mag ñee ma jàngal waaye maa jàngal xale yi ab teg de bu jubee te daanuwul ba jiitoo jub lool ku ci lekk dërëmu bongo ginnaaw yàlla ak yonent bi war nga sant le président de la république de bongo les bongoman Ouzin Mbaye képp ku ne katak giñ data giñ data mu saf nit ñi ñaari nit di la seetaan à cause de moi ñu bari bëgguñu woon seen doom nekk bongoman ma ñëw indi ci siluise indi ci teey indi ci fulla indi ci sañse sañse moom kenn waxatu ko sama yëf la macha allah indi ci lu bari loo xamante ni tey ñëpp ñu ngi ciy tedd waaye ci kaw tedd bi na rafet na rafet na rafet man may am milliar sama ginnaaw rafet a ma ko gënal ma dem ba màgget tey jii sama ginnaaw da rafet ñu ne def na fi aar ba jeex tuuma lañ ko borom ñaari tur yi tuuma lañ ko mo fi sàcc tuuma lañ ko mandi tuuma lañ ko tiriyan ku ci nekk ci këru àdduna rek war ngaa mën a jéem loolu. bon moment nii ñu si gën la plupart gars yi dañ leen di tuumaal borom ñaari tur yi ndax ni nga xamante ne noonu la ñuy mañeeroo lool tamit si bongo la bokk wala film géwél la wala la. artiste la ba pare bëgg dund loo xamante ni baaxul ay xeesal ay bënn gémmiñ bënn fii bënn bakkan rotti sa fii ba mu mel ni deretu bëy c'est pas civilisé tey Ousmane Mbaye nga xool ko mu toog nga toog rek. nga koy naw da ngay xam ne man góor yàlla laa toogal te pourtant ñoom ku ci dem ba lekk bu dee mu bongo ñun la ñun ñoo la soutenir ñoo la gunge ñoo la yërëm ngeen xool ci ñun ñun dañu amoon ay idole mais xale yi léegi dañu soxor duñu nangu li fi ne dañu soxor te boo aar ku soxor du siiw ku soxor du am dara yàlla nag moo bind doomu aadama yëpp mais dafa asaaloo xol yi xanaa xamoo way woowu ñu naan asaaloo asa bombe yàllaa ko moom yàlla dafa bind doom doomu aadama yëpp ba pare doog a asaaloo yi ku ne bi nga tombeel ñii tombeel xol bu baax ñii tombeel xol bu bon mais xale yi ma fi gis yu bëri bongo du mën a ñëpp mais genn wàll gi yëpp dañ soxor dañuy jalousie te mënuñu wax bongo te doone Ouzin Mbaye doone Vieux Niang ñun léegi ngay jiital doog a tudd keneen waa lu tax duñ ko. mais mais tey boo déggee ku mel ni Karbala génn na fan yi nee amul amul amul amul njit ci li nga xamante ni moom mooy milieu bi. waaw kooku moom buzz lay moom duma ko tontu na jàng ba si kanam. xale yi jël na jàng lu la xale yi jël jël jël jël boo wéetee xam la mën nga wala mënoo lu la xale yi xale yi xale gis nga Sénégal du ñu jël dañuy ab para delloo ku ñu jël weer na la fi ñuq. ñun 30 ans de art ñu ngi fi fa ñu nekkoon day raw mais te ñu ngi existé ba tey aaru bongo ba tey ñu ngi ñuy tudd 30 ans ci ren boo ne bongo na Vieux Niang ne Ouzin Mbaye ne Ouzin Mbaye na Vieux Niang par force kon xale yooyu di wax bongo nañ jéem ñu lim leen ci rang bi fii boo ne Vieux Niang boo ne Ouzin Mbaye na Vieux Niang galas ngay wax sa neex doog a lim keneen mais ñu si des ñëpp il faut apprendre kataki gin tataki tatakakat encore du léegi waaw ñoom nee nañ mën nañ barke Mouhamed mënuñu maa ko wax man Ousseyn Mbaye ñooñu xam nga lu ñuy ci pëpëm pëpëm pëpëm pëpëm ñun dañ daan taxaw kataki gin tataki tatakatat mu yeewu ku ko dégg di dégg fëlaw di dégg mbaar di dégg mbëpp di dégg njolt di dégg njolti njalaañ ñun ay géwal lañ kenn mënuñoo nax xale yi fii bongo man di may gis yëpp ñuy naaw yëpp di mbiib di wax mënuñu parce que Seydina Mohamed mënuñu ñetti taaso la ñuy taaso yaa ngi rëq kaata fay aawa yaay waa kon bi kaa leen xool ñëpp di ko xëccoo rek amuñu inspiration man damaa toog ne bu fajar jotee ba ganaar ya sat ngéwal sunu kër déggal maam di yeete bërsët na boo yeewoo yee ma yow lu ko waral xëy ba xëppoo sa ndox taal sa oto julli woo naan yaa ngi liggéey ba tey yaa ngi nelaw saa waajibul ji bul fàtte yàlla fii ku fi am moo la jàppale bur laawu ajjuma jotee deux heures wëral wëral wëral boutique fépp tëj ajjuma fépp ay tëj karak kon nga xam ni tey bongo lu mu bari bari bari boo nee bongo rek xel yëpp day nekk ci Ouzin Mbaye xel yëpp day nekk ci le roi des bongo vienna sama waa ji borom Canada borom Suisse borom États-Unis ki nga xam ni macha allah man bu fan di am kooku laa fan kooku laa gëm boolewul ak dara ak wax liggéey dem fu gaa yi mënut a dem dawal lu gaa dul dawal wax ni gaa yi dul wax te attention Vieux ñëwaat na Sénégal génnee na feem yu bees ñëw na Vieux Ouzin Mbaye ci mim réew xale yëpp nañu réglé. waaw projet yi. projet yi ñu ngi ci kawam. Ouzin Mbaye yaa fi génnoon euh, wax doxu mbedd bi mais booba ak léegi gisatuñu Ouzin Mbaye. da nga topp xew yi ba. xam nga lu tax man paaka ñaari boor laa maa ngi Colobane sama jot mayu ma yenn yi aar dama ci nekk nag lu ma am moo ma ko may barki dembalaa laa def ak Pape Diouf lu doy waar génn na way ci Amadou Ba barki dembalaa defak def ak Wally Seck lu doy waar bu bees bi bongo ci loo xamante ni ku ko dégg da naan son bi lii lan la te Wally ba mu soxloo bongo man woowul Damba woowul Paate woowul Issa Ousseyn Mbaye la woo barki démb ma def fi ak lu birik dispensaire ci loxoy golo bu xati woppee dafay dee gars yi na wow gars yi nañu liggéey xale yi nañ ñu nangul xale yi nañ ñu nangul gumba bu duggee cinéma bëtam taxul na sax misik ba mu dégg moo sedd xolam waaye gars yi déglu mu fenn fa ñu toog la ñu toog di déglu fulaw di dégg bongo di dégg mbaar léegi xale yëpp luy seen bongo këkël këkël këkël këkël ne dañoo aay pour lan loolu boo ko joxee njaago yi sax ñu def ko pële fuuta yi sax mën nañ ko bokk ci bongo yëpp ay baas doo dégg laam kooku nag nga ma tuddal léegi nag jàngi bongo munagul ñun duñu ay moromam bu ñu dul ay président am ah réew mi ñun ñooy seen président ndax émission bu bees bu am ñoo fi njëkk a toog macha allah je touche du bois émission bu bees bu am dañ naan Ousseyn Mbaye yaa koy njëkk a ubbi man nag bokkatuma ci course bi maay joxe départ à part d'aujourd'hui xale bu fi defati pëbëm pëbëm man ak yow ñoo koy diggaale na ñëpp def kàcca kiñ kiñ tata kiñ tata tata. monsieur yaa ngi waaj loo xamante ni maanaam da ngay woote lu ci mel ni Sorano la tamit. maa ngi waaj maa ngi waaj le 21 décembre sama anniversaire bi may def chaque année five bi passé ñëpp ñëw nañu waale jox ma xaalis bu bari Pape Diouf jox ma xaalis bu bari bientôt le 21 décembre bii pas duuta sekk laa koy defee ndax directeur yi duuta sekk moo ma woo ne ma ñëwal defee ko fa Bamba Fall moo koy sponsorisé Bamba Fall meeru Medina sama xarit ki ma way maire Serigne yaay sunu maire yaay sunu Serigne maire seriñ muy Bamba Fall mu baax mi laa tuddee bés bi na ko senegal yëpp waat nuit di bongo lay nekk cent cinquante bongo cent tama trente cool trente mëmmëng juróom benn clavier maa ngi koy waaj fii ci Douta Seck lay nekk nuit di bongo waaw euh, Ouzin mbaay li nga wax am na solo muy la 21 mars 21 décembre du mois nga wax loolu muy lu am solo mais mënuñoo ñëw te duñu la laaj aussi actualité ku ne Wally sekk na Ouzin Mbaye man loolu xam naa ci dara ndax dem nañ këram ci lu mu yegul moom Waly ñu ñëw dugg. loolu mu bañal ñëpp yàgg na mën na deux ans. mat na cinq ans. mat na cinq ans cinq dëgg la mu ngi noonu. tuuru tabaski. quatre vingt deux mille deux mille six xaw ma deux mille sept ñu dem këram journaliste yëpp fees fa del Waly na du ma génn sëpp gis ma wàcc. na Ousseyn Mbaye moom bu ma ko gisee sama kër ñun rek ñoo am keroog interview ñu si dëj ñëpp taxaw sàccaa la jël mu ne bu ma wàccee kii la kon kooku boo ma ko tuddalee Mariasine may sa biigee dama koy nuyu nuyuwaale sama xarit boobu di nuyu xaritam met sot fii la dëkk oto ma ngi nii waaw fii la dëkk ci biir kër gi fii waaw. saa mhm. yi nga gis polémique bi bari Wally Seck su ma juumul mayoon na la fi moto. may na ma fi moto. ba muy may li nga xamante ni mooy oto bànn yaa yaa ko yóbbu woon. waaw mu mayoon Thiat Seck li nga xamante ni moom mooy oto war na moot ci un an Thiat génn na ne waale oto bi mu ko may du oto bu baax oto bu xobidaas la ko may maanaam daal amul mu waxut. tey réaction boobu nga xamante ni réaction boobu nga xamante ni Thiat def na ko ñu bëri ñaawlu ko ne même bu doon sax lu bon la maanaam amaana mënoon na ko mënoon na giseek ak waxtaan ak moom ci lu Wally yëgul ci lu kenn yëgul tey nan gisee caat sa mbokku géwél sotti bi nga xamante ne. xam nga dañu ne tëkku jàmbaar faj ki rep xañ ki nar a am loo ci njéem lu ne yàlla ngay bëreel tëkku jàmbaar faj ki nar a am loo ci jéem yàlla ngay bëreel. Mariasine may sa biige may sa biige maar ku mu bokkal dimbali na la caat dafa juum ndax taxaw na oto boobu bu dee ñeenti fan juróomi fan dawal na ko tagg Waly fu ne fu mu taxaw barki démb rek la taxawaat ne ko nagu cant gi laa jël si ci kaw seen waali jox ko njëgu nag waaw di ndamoo waali baa nag moom barki démb boo bokk nañ plateau euh, duma tudd turu tele bi ma wax ci waali mu tuur xewal jooy gërëm waali bay jooy kon waali li mu def teat dafa juum même bu la mayee lu bon taxawal na lu baax lañ ma may dafa juum sama xarit boobu xol bi nag moo koy yóbbaale caat dafa wax ba wax erreur na juum rectifié waat li mu wax waali du mayalu bon waaw nee na nee li mu wax daw ci dara fu taxawoon fa ko gën a taxaw ba pare li ko métti bokk na ci son bi nga xamante ne way na ko waali mais boobu tey waale deful benn réaction. mais waaye ko jox numéro téléphone mais bu ko woowee téléphone du ko jël bu ko vocalee du ko tontu. waale amul jot. man waale dama koy woo duma ko jot. man Waly musuma ko jot téléphone musuma wax ak Waly téléphone da amul jot mais bu ko wayee yàgg yàgg xam naa ne Waly dina ko teral dafa juum rek caat dafa juum na rectifié waat li mu wax waaw. mu xamaat bu baax li muy wax ci kanamu journaliste bu buñ la tiimee jàmm bi bu meree dafa war a ànd ak xelam ah bañ di gaawantu nit loo mer mer. bu dee teraanga amul képp kuy way fii rek ci jeune talent yi te Wally di lekkoo dërëmam te dawaloo otoom man moto bi ma jox ba tey moom laay dawal moom laa dugal ñu jox ma bii dolli ma xaalis bu weex tàll ci moto bi ma jox bii may dawal kon Wally ku ko ñaanalul waroo koo xarab cat sekk dafa juum sama xarit boobu waaw Serigne Fanta Mbaye dafa juum. tey bu ma la laajee euh, Ouzin Mbaye ci li nga xamante ni moom mooy artistes yi waaye dañuy lim diggante Wally ak Sidy Diop muy ñaar ñoo xamante ni ay xale lañ mais ku ci nekk sa moroom bu génnee rek lu rafet ngay wax ci sa morom mu mel ni ñu bëri na entourage yi ñoom ñooy yàq diggante boobu ba ci Bercy si dikk débatté bi dégg nga polémique yi nga xamante ni am na ci bu Boucher Ketchup kàddu yi nga xamante ni yëkkati na ko en tant que doomu géwél tey ba nga déggee loolu ngay wax ñi xamante ni ñoom ma ni mhm. diggante Wally Seck ki nga xamante ni moom mooy Sidi Diop ñuy ñaari xale ñoom ñaar kuñ ci dékk micro lu rafet ngay wax ci sa moroom mais dafa mel ni entourage yi ñoom ñooy génn di wax loo xamante ni lu safaan la ba ci bersi bu si dikk jabaate bi dégg nga Boucher Ketchup li nga xamante ni wax na ko ñu bëri lu ko ci ci ci kàddoom li nga xamante nan la waxee yow ban gis ka ci Wally man xam nga yooyu dama ko seetaat mais diggante Wally Seck ak Sidi Diop jàmm rek laa ci wax jàmm rek laa ci xam xaw ma ci safaan c'est des frères c'est des ku ci nekk am nga sa mbooloo ku ci nekk am nga lu la saf siidi Waly magam la Waly Sidi rakkam la kon c'est senegal Sénégal qui gagne loolu rek laa ci ma a wax. entourage bi man xaw ma lu ñuy dund man xam nga lu ma gëm. kàcce ki giñ kàcce ki kàcce dem tëdd la nu jotee du ma ci yëg dara barke Mouhamed. yow Ouzin Mbaye mën nga nekk ci réew mi te yëgul barke Seydina Mouhamed su ma ci yëgoon sax man su ma ko yëgoon. diggante Sidi Diop ma ngay liggéey Waly Seck ma ngay liggéey Ousseyn Mbaye ma ngay liggéey xaw ma lu nu seq jàmm laa seq ak Sidi Diop jàmm laa seq ak Waly mais xaw ma sax kuy Sidiki jabaate dama koy dégg rek. su ma gisoon photo Sidiki Diabaté sax du ma ko xam man du ma seetaan télé du ma génn guddi du ma dem boîte sama compte TikTok sax dundi naa ko waaw. man ñooñu xamaluma leen lu dul jàmm te yal jàmm yàgg ci bat sëñ Fallou. tey ñu ay kàddu yu ñaaw di ko teg ci euh, deram moom Faramareen nga xam ko bu baax ñuy wax ay kàddu yu ñagas nan yow ni nga ko xamee kàddu yooyu boo ko déggee nan am na ñoo xamante ni yàllaa leen bind te gëmuñu yàlla. ñu na mu gën a sonn ci artiste yi. Seydina Mouhamad yëpp am na ko bañ yan na ma yàlla jéggal ci baat bi ma wax am na ñu nanguwul am na ñu dul wax ashadu an laa ilaha illa te ñuy jullit noon yàgg na ci àdduna ku amul noon ak ku ñuy wax ci yow baaxoo nañ toléré yëpp ñun si ñun ñëpp Lamine Samba barki demb dama dem anniversaire benn waay ne xoola Lamine cigarette sax bu ko xeeñee mu def nii te barki demb maa ngi toog nit naan Lamine day man di bay def dem duus si tubayam te Lamine cigarette sax du ko tux te ñu bokk ndey ak baay cigarette sax bu ko xeeñee nii lay def am na ñoo xamante ne dañ naan Ousseyn Mbaye day naan bane bi ñamax Ousseyn Ba ya dàq man di ci àdduna te waaye ñooñu nag bàyyi leen Ousseyn Ba di leen raw saa bu Ousseyn Ba xëyee dem kacek ginda te kacek yow maa la woo na la jël ma yaa ma bett liggéey moo koy maye ku liggéeyul duñ la dëkk micro ñaata bongo maana ngi fi dañu dem ci ñoom Ousseyn Mbaye nga sentir ku ci nekk ak kañ sentir nañ bàyyi waxu ginnaaw kenn du ko tontu. deel def luñ mënta def di dem fuñ mënta dem di jëf luñ mënta jëf di tabax ci kër yi di dawal ci oto yi Wally Seck foofu la leen rawee dama wax rek mbay cuun ñëw cuun Demba Yacine Sagol Baba Yacine Sagol Alpha mi ci Balakos ñett ñii la Wally gëm ci àdduna met sop mbay cuun xuu ah ak Iliman Gueye ñii ñooy garmi senegal booy wër garmi ñii ñooy tiim ci benn guddi may waali ay millions dem ñibbi xam nga kii taxaw nii gaarewul 404 mbaar gis nga la mu gaare dama wax rek mu ne tël te ñii lu ne la ñuy wax ci ñoom kii ku fi wuyoo iPhone ci réew mi moo la ko jaay iPhone quinze jours bi mu génnee la ko mbay cuun am iPhone ku ko wuyoo ne allo ci artiste senegal ne nii nga xool muy 15 wala 14 kii la jeeg ji lu ñuy tiitaroo ñu ne ngalam yow sa maam fas wala daan takkal ngalam jiitu nga leen sànni karawaas ji daan leen jël buñ dootul miim Cundemba Yacine Sagol Baba Yacine Sagol Alpha mi ci Balakos boo may def émission ba nga gaare sa oto dama lay nuyu mbokkum dayu met shop mbokkum dayu Waly Ballago Seck mbokkum dayu xuu mbokkum dayu mbay kenn du yow mbokkum dayu fàllu Kolobaan mbooloo mu jëkkal yi ci réew mi jëkkaru chauffeur ci gën ndax dalay wane di nuyu njool sama mécanicien ancien nga xam ne yéen ku amati problème mu moto bu paan rek woo ma waaw ma woo njool di woo nag sunu chef de quartier pa bu nice Abdou di ko gërëm bu baax di ko sant di gërëm seex sama xarit seex do mbokkum ndayu Moustapha ah di gërëm sunu mbasoo boobu nga xam ne man ak moom kolabaan la Moustapha sama xarit ah di nuyu Thioune Demba Yacine Sagol mii nga xam ni fu ma fekk nii lay defak man Baba Yacine Sagol Alpha mi ci Balakoos di nuyu nag vie ñaa sama xarit teraanga dañ koy wane parfum bi ma may démb la ñëw gaare fii otom jox ma ko xoolal bi mark kii du parfum juróomi téeméer vie ñaa le roi des bongo moo def lii borom kanada ñëwat na senegal nag ak doole te may wax ni Bongo Mane à part d'aujourd'hui à part d'aujourd'hui j'ai interdit que gën que que gën que gën que gën que gën je veux ici kataki kin kataki katakakat à part d'aujourd'hui asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala barakaatu. voilà li leen indiloon euh, yaakaar naa ni kontaan ngeen Ouzin Mbaye dégg ngeen kàddu yi nga xamante ni yëkkati na ko di leen jox rek euh, dig daje très bientôt ak keneen jaajëf.